ndongo daara ci université virtuelle du Sénégal plus précis euh, ci ENO bu Thiès donc tey sénégalais yëpp damay wax ak ñoom di leen xamal mbir moo xam ne nii ñu ñëpp la war a euh, intéressé ñun ñëpp la war a soxal ndax lan tey bu ñu taxawee fii nii nekk ay étudiants yoo xam ne nii dañoo xa dañoo ñafe dañoo xare ba egsi ba am suñu licence tey ñu war a jàll si yeneen diplôme si yeneen Euh, njàngu si yeneen njàng tey université virtuelle bi nga xam ne fi lañ bokk mu bëgg ñu koo xañ loolu moo tax tey ñu taxaw fii nii pour xeex ko bu ñu gisee euh, taxawaay bi dafa nekk loo xam ne nii dafa ñu soxal dafa nekk loo xam ne nii daf ñu yitteel lan la administration bi décidé mooy wàññi étudiants yi nga xam ne dañ leen a waroon a jël ñu continuer seen marché te loolu bu ñu ko nangu loo xam ni toll na si junni ak lu teg si ay étudiants euh, ñaari junni ak lu teg si ay étudiants ñu bëgg si jël loo xam ne nii motul sax junni donc loolu noonu du nekk loo xam ne nii dañ koy nangu effectivement donc te boo gisee administration bi respecté wuñ loi ak décret bi nga xam ne moom la ñu teg pour lii nga xam ne mooy admission en master ba dañ leen jox benn loi boo xam ne nii dañoo war a respecté képp bépp étudiant boo xam ni validé nga sa licence redoublé woo Euh, am moyenne boo xam ne nii ëpp na fukk ak benn ci ñaar fukk dañ la war a jël nga matal sa euh, sa téeméer ak juróom-ñett fukk si ay euh, points yoo xam ne ñoo la koy laaj sa ñetti at yi nga def donc pour am sa licence loolu noonu dañ la war a jël te ñoom loolu respecté wuñ ko ndax lii buñ ko defee di nga gis ñoo xam ne nii ëppal nañ loolu foofu te duñu leen jël te boo gisee am na ñoo xam ne nii ñoom ñoo ngi lancé seen admission en master te am na ñoo xam ne suñuy am na si ñoo xam ne nii suñuy morom lañ pareeguñ sax seen rattrapage am na si ñoo xam ne nii sax pareeguñ seen seen seen année pour que ñu mën leen a euh, sélectionné donc nekkul loo xam ne nii lu ñu mën a nangu la déedéet lu ñu bëgg mooy seen euh, décision bi ñu jël ñu dellu si ginnaaw bu baax a baax te tamit ñu xaar ñi nga xam ne ñoo nekk euh, si rattrapage ba ñu pare ñu doog wax lu ñuy wax donc dañoo wax ne lënd bii di ñëw la ñu war a euh, arrêté li nga xam ne mooy mbindu donc loolu noonu bu fekkee ne dañ koo bëgg arrêté te ñii ñu ngi ñu ngi en rattrapage ñoom donc euh, amatuñ benn yaakaar pour bokk si donc loolu noonu la ñuy la ñuy la ñuy xeex te dinañ ko xeex ak fépp fu ñu mën di dem. fépp foo xam ne nii ñoom pare wuñ pour reculer ñu pare nañ pour avancer te combat bi duñu ko bàyyi fii li ñuy wut amuñu ko. ñàkkuñu ay place parce que université virtuelle du Sénégal ku ko dégg xam ne waaw seen slogan foo nekk foofu la donc laajut ay place te njàng mi c'est en ligne. Euh, internet donc te ENO yi nekkul benn ENO nekkuñu Thiès kese ñu ngi ci au niveau de quatorze départements au Sénégal donc bu ñu ne tey ñàkk ay place loolu lu ñu mën a gëm te ñoom dañu ko doon jiiñ monsieur le ministre te ministre bi li mu wax leer na kon faute bi mënuñu ko teg toor ci monsieur le ministre monsieur le ministre daf na leen ngeen wut solution si ñu nekk master 2 waxu leen ñi nekk licence ñi nekk master de ngeen wut ci ay solution ndax li ñuy redoubler dafa bëri léegi ñoom ñu bëgg wut solution bi si ñun def ñu ay cobaye te loolu duñu ko nangu duñu ko nangu duñu ko nangu ñun li ñu bëgg yomb na pas de quota au niveau de euh, bu ñu am benn ay nombre yoo xam ne nii dañu koy jox naan ñii la ñuy sélectionné li ñu bëgg lenn la ñu respecté ré euh, loi ak décret yi ñu joxe loolu yomb na ñu respecté loolu noonu te master bi amu euh, master bi képp koo xam ne nii sa critère nga ko pour dem master nañ la sélectionné ñun loolu kese la ñu bëgg bu loolu amul mën nañu xaar lu nekk si ñun parce que ñii ñëpp dañoo nekk ñoo xam ne nii dañoo déterminé pour xeex seen avenir parce que suñu avenir fi mu toll nii moom moo ñu leeru moom c'est incertain donc loolu noonu la ñuy xeex te pare nañ pour def lépp lépp loo xam ne nii yaakaar nañ ne nous ne sommes pas capables bay boo ñu génnee seen xel xam ne ñun pare nañ pour def lépp même bu jaree def grève de la faim xiifal dañu koy def même bu jaree ñëw taal eno yi dañu koy def même bu jaree baarub dañu koy def ah dañuy sax dekk Sonko ak Khady Sarr euh Euh, bees donc loolu noonu euh, toujours ñoo ngi siy wax parce que ENO bi chaque année que jëfee lu ñuy wax d'ici deux mois d'ici trois mois ñett bi ñu ñëwee UBS ba léegi ñoom naa ñi ENO bi bare na ENO bi pare na ENO bi pare na ba léegi nii mosuñoo gis ENO bu pare ba léegi ñu dañuy chantier ñoo ngi si ñoo ngi si ñoo ngi si ba léegi ñu dëkk chaque année ren jii rek lañu ko wax nañu fii quelques mois dañuy dem si ENO euh, bu ba léegi école bi kenn gisul fii kër la fii kër boo dem di nga fekk étudiants yi bees lu ñuy def àbb ay salle ay salle de classe la ñuy pour def foofu ay révision def seen ay cours boo demee centre culturel ñoo ko fees boo demee. parcelle ñoo fees fayu ñoo fees boo demee lycée ñoo fees Bassirou Mbacké fees boo demee campus Idrissa Seck ñoo nga fay fees. lu tax ñàkk place. fii nii boo koy xayma chaque année ENO euh, de Thiès bi bokk na si ENO deuxième ENO bi ëpp ay ay ay ay étudiants à part Guédiawaye en moyenne euh, euh, mënuma xam nombre exact bi mais xam naa ni ëpp nañ plus de cinq mille étudiants.